ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaat ak yéen rek ci seen info du jour waaye nag képp rek koo xam ni abonné goo ci seen bile ñu lay wax nga daw abonné te activer rek li nga xam ni moom mooy cloche de notification bi ngir ngeen di mën di am suñu ay vidéo à temps bu leen fàttee di like vidéo yi ak di ko commenter ndax lu ci ama am solo la. Cheikh Ahmed Cissé lan koy daal di doole rek moom nag Cheikh Ahmed Cissé rek gannaaw rek bi nga xamante nii eh, kenn ci rek ci suñu ay confrères di ki nga xamante rek moom mooy congaan daal koy rek laaj li nga xamante ni moom mooy nuyu ko pare rek daal koy daal di baalu àq moom nag daal dina ko xamal rek ni ko baalu àq ki nga xam ni. Euh, moom la nit ñi di baalonte àq ci li nga xam ne moom moo di weeru koor nekkul loo xam des ni lu dëggu la ci ñoom euh, ndax nag su fekkente ni nit ki da nga ko bëgg a baalu àq rek danga koy rek daal di envoyé vocal directement ci boppam wala nga woo ko téléphone euh, daal di koy baalu àq waaye nag mënoo jël rek benn audio rek daal di koy transfert lu tolloo ko 3000 personnes rek naan leen dama leen di baalu àq loolu nag nekkul loo xam ne des ni lu dëggu la beneen ba ci des mooy que ne nit ki tamit soo koy baalu àq war nga ko wan a wax ni ko ah man kat maa la def nangam ak nangam ak nangam tey nag sañoon rek nga daal di may eh, bal ak moom nag su la mënee bal mu daal di lay bal waaye nag su la mënta bal rek mu daal di nag la wax ne carrément kat eh, mënuma laa bal waaye nag di taxaw fële di lancer ay message naanaam maa ngi baalu àq moom nekk na loo xamante si nag dëgguwul teg ci ñi nga xam ne ñoom moo di eh, sénégalais yi lee te nag weeru koor nag nekkul sax weer woo xamante si dañ ci war a baalonte àq waaye nag weer la woo xam ni eh, dañ cee war rek ndokkalante ndax nag weer woo xam ne rek dañuy daal di eh, tëj li nga xam ne moom moo di safara jéng seytaane ba pare nag daal di tijji buntu àjjana yi moom bis la weer la rek woo xam ne dañ ci daal di ndokkalante maanaam su ma la gisee rek maa ngi ne wax la maa lay ndokkee rek ci weeru koor koor wi lee ndax nag weeru ngëneel la waaye nag du weer woo xam ne si nekk dañ cee war a baalonte ak moom Cheikh Ahmed Cissé coow li nga xam ne amoon na ci digganteem ak euh, li nga xam ne rek mooy wax yi mu waxoon ci lu jëm ci jumaa yi ak yu ni mel ngir rek ñu daal fay séddale li nga xamante ne moom moo di ay préservatifs rek moom nag xam ne nit ñi nag moom nag dañ koo rek daal di aatee foo xamante ni la mu wax nag dégguñu ko waaye nag buñ sukkandikoo rek ci diine euh, dinañ xam ne carrément kat lii mu wax ni kat ci ay nangam wala ci xadis nangam rek la daal di nekk ba tax na nag nit ñi nag aatee ku nekk rek ñii nag daal di nañ ko tëj ñii ne nañ ko rey ñenn sax di ko di ko rek jigulal ay baat yoo xamante ni baat yu ñaaw la moom nag Cheikh Ahmed Cissé nag daal dina ci rek def ay éclaircissement yu am am euh, am solo daal di xamal nag nit ñi nag nañuy rek tënku ci diine te bañ di euh, tënku ci li nga xam ne moom mooy seen bakkoon wala seen nafsu euh, bakkan moom Cheikh Ahmed Cissé nag daal dina lancé benn message rek ci sénégal yi moo ñu gën a bàyyi seen xel rek ak ni nga xam ne rek noonu la ñuy doxee ci li nga xam ne moom mooy jamono jilee ndax nag nit nag su fekkente ne rek maanaam da nga nekk ci ab bërëb dafa am noo doxee rek dafa am comportement yoo xam ne rek moom rek nga daal di war a mën a yore bul nag juge doomu aadama mukk rek te rek daal di loo ko xam su nu waxee lenn lu jëm ci alxuraan wala ci diine nag danga koy daal di saytu ba pare daal koy gëstu ba pare ngir rek nga mën a xam la nga cay tontu wala la nga cay wax moo gën rek nga dégg til rek ni daal di damm na waaye daal weeru koor moom nekkul weer boo xamante ni weer wu ni baalonte àq la waaye nag weer la woo xamante ni rek wun war a ndokkalante la ñun jullit yëpp lee kaddu yooyu moom ki nga xamante moom moo di Cheikh Ahmed Cissé moom moo ko daal di yëkkati woon loolu moo gënoon a fës rek tey ci xibaar yi ñu daal leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.